Tata, c'est à toi. Altine, tey si suba dama daan doxantu dama nekkoon ci jàmm bu bari sama bopp bi na ci si biddew wi sama ay tànk ci mbégte ak bànneex ci biir sama xol ci dëgg-dëgg maa ngi woon ci jàmm ju bari